li ñu fi dajale nag benn mbir kese la mooy esaatu Mbàkke bi la ñu ñëw fii pour naqarlu yéexaay bi nga xamante ne yéex na ko parce que depuis un an et quelque la ñu démarré waatoon pour teg tribune bi ñun ñëpp ñoo ko constaté ndoo sànq bu ñu démarré un an boobu ba tey fii la ñu toll coffrage coulé coffrage coulé beneen partie bi li si ëpp moom tàmbale guñ ko sax bay ba koy coulé donc li ñu fi indi nag mooy parler avec le chef de l' état moo fi def déclaration barki Dembo Ndiaye mu ne je tiens que ne le stade de Mbacké sera inauguré en deux mille vingt tardivement ministre bi ñëwaat na reveniraan na sur une radio de la place Benno FM mu ne plus tard mois de décembre sera l'inauguration du stade de Mbacké vu les lenteurs na waxuma le décembre mais deux mille vingt quatre on ne pense pas que ne stade bi fii ak ñu defee nii di doxee nii deux mille vingt quatre taxul Mbacké am stade donc loolu mooy li ñu fi indi ñu prenons nag témoin la population sénégalaise on va aller en vitesse supérieure au-delà de mois de décembre loolu moom il faut mu leer au de la de mois de décembre moom on va aller en vitesse supérieure mooy lan lépp lu mu laaj dinañ ko def du nekk di ay point de presse wala nangam ak nangam vitesse supérieure nag moom du lu ñuy dévoiler mais il faut ñu xam ko xam ne mois de décembre mooy inauguration bi su ko dépassé leneen lu ñu gis lu nekk nañu assumer seen ay responsabilités donc beneen bi aussi mooy. si ñàkk tenir seen ay kàddu en commençant par le ministre l' et le maire de la commune de Mbacké dañ nañu woon bu ñu tàmbali travaux yi ba tëj stade bi dinañu wutal fu ñu fubali jee àggale suñu ay activité malheureusement depuis deux ans ñu tëj stade bi boobu ba tey waxuma la fu ñu fubalee waaye camp yu ñu samp sax amul Mbacké li fi am nii ay bonne volonté ñooy kocc kocci daggi garabi gaar bi jënd seen ay file samp ay camp seen bërëb bi koñ pour xale yi mën continuer seen ay divertissement donc loolu li ñu jàpp ne yabeel la boo xañee ay ndaw ne leen dañuy tëj dañuy defar war nga leen mën a wutal feneen te bu bokkoon ci accords yi nag ñun ñi ñëpp ñu toog bureau maire woo entrepreneur bi mu toog ñu main libre ko donc mu doon lu leer dara amu si naqaruñ sax loolu mais li ñu gën a métti mooy nii ñuy liggéeyee on dit que ne état bi génn nañ au delà de presque un milliard si lu ñu wax amaguñ source yu leer yi nag ñu ngi koy topp te alors que ne lii ku fi ñëw war nga xam ne li ñu fi def nii fii bu ñu fi defoon waxuma la un milliard mais trois cent millions yu rond heure bi romb na fii kon am na loo xamante ne li ñuy bañ rek mooy li ñu daan def di jaar si ñun di enrichir dëkk bi di gën a pauvre loolu moom il faut que ça s'arrête moom au delà def fii nag jàpp nañ ne mbake yaa a trop de mots amuñu dara on rien on n'a même pas li gën a tuuti mooy ay infrastructures ay tali ay yéen ndaw gën a ndaw donc quand on parle de l'emploi des jeunes ainsi de suite des promesses non tenues mënul ànd encore ak déclaration promesse encore pour ñun suñu promesse bi jiitu c'est le stade de Mbacké deuxièmement bi c'est dak de tout faire nag ba li ñu wax ak askan wi ñu wàccoo ak moom wàccoo nañoo def nañ ko wax nañ quatre fois nag dara amu si jàpp nañu cinquième fois bi mois de décembre la ñu wax ah ñu ngi xëpp suñuy bët di tàllal loxo nag kilifa diine yi kilifa aada yi ñu wastu si àq comme ni ñu ko defee woon ndax vitesse supérieure yi nit ñi di déclare yëpp mu nekkutoon ak ñoom heure bi romb nañu fii mais chaque jour ñu ngi ñuy woo di ñu apaiser di si dox ay jéego yu am solo kon nag bu ñu demee ba agsi fii nag ñoom ñëpp nañu xam ne mois de décembre la ñu wax la ñu inauguré kon mois de décembre suñu ko jéggee moom amatul lu ñuy xaar